li foofa ndax naka jekk li ko waral mooy màkk dëkk la buñ daan aj si ci àdduna bi yëpp di fa ñëw booba sax lislaam kiyagut ci jamono Ibrahima rek ba ba yonantu bi ñëwee léegi nag bi fa yonantu bi nekkee ñu yónni ko du tere terewutoon tamit ñu ñaan doon bàyyi yeneen gox ñëw di aj si moom tamit da daan profité ci fani aj yi nga xam ne àdduna bi yëpp dañ fay dajee mu mën a fexe ba lancé message mën a fexe ba am mbooloo ci ñooña léegi nag hmm, loolu la ñu ngi ko daan defee ca jamra ya parce que jamra foofu ci minan kenn du ko absenté ñëpp fay daje euh, fan yooyu ñu fay am muy ñetti fan ya léegi nag benn at mu njëkk mi bi mu laasee message bi ci woote yàlla may na ko lu mat juróom benn nit gëm ko ci ñoo xam ne ma dina lañ bàyyeekoo ko waxuma nit bàyyee ko ci yeneen gox ñaareelu at ma mu am fukki nit ak ñaar kon xam nga mu ngi dollee ko ñetteelu at ma nag ci la mbir ma gën a dollee ko am na juróom ñaar fukk ak ñett yoo xam ne ay góor lañ ak ñaari jigéen mu mel ni kon am na fa doole léegi nag ñooñu tamit di ko wax ne ko ñëwal nga ñëw ci suñu dëkk bi ñii nga nekk dañ laa réere ñun danañ la dalal danañ la protéger loo bëgg a def nga def ko waaye nag amagul ndigal te ko amul ndigal mënu koo dem mu bañoon li dana yonantu yàlla yunus moo tax mu ne zikru bayatil aqabati salaasa njaayanteem boobu xewee ca aqaba ya te mu nekk ñetti yoon lay ñëw di ko bëgg a jàngale ci moo tax mu ne wa banu xaylata banu xaylata alkiraamu ñu tedd ña salaasa ñetti yoon baayaxuhu jaayante nañ ko yonantu bi te ne nga ne baayaxuhu jaayante ñoo salaasa ñetti yoon wa fihim aji nekk la ci bi seen biir nuqabaaw ay tànneef nekk na ci seen biir ay tànneef ñoo xam ne ay sang ñoo xam ne fa ñu nekk ñoom lañ fay déglu te ku ne boo amee kañ fay déglu yàlla dana la dimbale dégg nga de si tatun juróom benn nit lil ula jébbalu nañ ko ca at mu njëkk ma wa diafun fulëb juróom benn muy fukk ak ñaar lil wusta ca yoonu digg ba ca at ma ca digg ba jamalun juróom-ñaar fukk dégg nga ak ñett lil uxraa ci at mu mujj ma wa baawun ñaar nisaawu ci jigéen ñooy xam ni ànd na ñoom def ko moom sallallahu alayhi wa nag jekk nag dañoo amoon ñu ñu allié avant ñi allié ak yonent dañoo allié woon nag banu nabir nga fa nekkoon ak banu xuraysata ndax banu xaylata buñ ko waxee rek mooy awsu ak xas rek seen maam mooy xaylatu moo leen meññ ñoom ñaari famille waaye nag naka jekk li ñuy jege jege bokk benn maam mosuñoo juboo at mu jot ñu xeex bu ñu xeexee nag ñaar ñele euh, muy awsu ak xasraj bu ñu xeexee léegi kii banu nadir mhm. dem farak awsu ma mu allié ñee tamit dem farak xasrañ mi ñu allié léegi nag euh, boo waxee ñu ne ñun kat dañoo tere nañ ñu xeex waaye terewul ñu ñu dimbale ku ñu ku ku ñu ku suñ suñ suñ suñ kuñ koo xam ne moom lañ farandoora euh, loolu nag ci la ñuy def occasion ba ci seen i kaw noonu nga dégg alquran di wax fa suratul baqara ne lu tax tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baadin wa maa jazaau man yafal minkum illa xisyun fi lxayaati dunia wa yowma alqiyamati yuradduuna ila illa ashadil azab mooy loolu lañ léegi nag ba nga xamee ne nag léegi ñëw nañ jébbalu ci yonent bi nangul ko ñu firi nag kóllëre gañ amoon ak yahuud ya léegi nag amatuñ benn kii lu dul ak yonent bi moo tax mu ne wa uhuudul yahudi kóllëre ak yahuud ya qad pëgg nañ ko sànni ko ca xaj is ngir bi ahdil amini ci kóllëre ak sayyiduna muhammad mu ñoolu mi axra moo gën a raw a faaw ci matal kóllëre yonent yi gën a war a matal ñu bàyyi nag far euh, kóllëre gañ seqoon a yahuud te ñoom tamit dañ leen daan sookale rek ñii xeex du ko defee ñoom tamit ñi xeexandoor kenn ku ne mën a jot sam noon suñ paree nag ñu ca jàpp jar-jar dañ nangoo dem génne alal dem jot ci ko waaye nag te dañ leen a jëm dañ leen a téléphone jëmmi xeex bi moo yàlla ne lu tax waaw ngeen gëm leen ne ci liñ leen digal yàlla bi ko bàyyi leen la mooy da nangu nañoo dimbalante ci seen biir nangu nañoo ku ñu jàpp ñu dem ñeneen ña dem jëli ko waaye nag yàlla ne loolu lépp dañ koo xaraamaloon wa muharramun alaykum wa ixraajuhum ne ni gën afatuuna bihi kitaabu takfuruuna bi ba'di léegi nag gannaaw bi yonent bi amee doole foofu ca Madina nga xam ne sax fekk na fa jàkka ci la nag Euh, door a départ nag war a dem gàddaay mais ba muy dem na ci ndigal moo tax mu ne fii badil hijrati ilal madinatil munawara ala saakiniha afdalu salaati wasalaam baxda haza gannaaw lii lépp xad haajara la gàddaay sax bu saxaaba ya afwaajan mbir mu ñu def mbooloo ila tayba te jëm tayba wa niama baax na sawaawu sax ga haajaroo gàddaay nañ siran ci nëbbu maa si waa amrin ku dut omar moom de gàddaay na jëhran ci lu biir bi kafa yi aji nekk la nekk ci ñaari ténqam ya ñax la mun jaasi farraawu bay dagga kon yooyu jaasi taxaw ci digg dina màkk kon ne ku bëgg sa jabar teen ji wala sa doom sotteeku jirim rek topp na ci yoon wi kenn ñu wut koo topp waaye ñëpp a nëbbatu wa alliyu alliyu su ma atiiqu topp Aboubacar ñoom ñaar aqaama sax nañ maa ak yonent bi waaye nag maa massahum laalu leen isa isawu lor xam nga ne euh, abu Aboubacar moo àndoon ak moom ñu dugg ca xuntuma Ali ibnu Abi Talib nag moom moom la bàyyi woon ca lalam ba mu sàngoo mbàjjim ma ne ko des fi ngir fayal ma bor yi mu ko kenn ëpp ko fit gaa yi dajjee buntu ba fekk ko fa tamit yàllaa ko dimbale Mikaayil ak Jibril la yàlla yónni ñoo ko doon garde ba tax na tamit kenn laalu ko wa qurayshun qurayshu dégg nga fii xat e, xaawaloohu fexeel nañ yonantu bi fii daari nadwatihim seen kër seen seen daaru nadwa mooy seen seen bu doon léegi nga ne mooy seen assemblée ba foofu lañ dajee ca booba pour fexeel yonantu bi luy faat Eh, maanaam aaraawu xalaat ya bëccëg booba la dëkk ba yëpp daje. bañ koy def nag dañoo tëraloon benn charte ne képp ku bokk ci Quraysh boo xamee ñaar fukki rek mën nga koo fekkee waaye ku bokkul ci Quraysh foog nga am ñeen fukki at door a mën a fekkee jotaay bi ndax eh, eh, Quraysh yu mooy gën a ñaw xere léegi nag ñu ne daal li ñuy tax a daje yëpp ci ensemble bi benn yëpp rek la lu fi jëlee yonent bi ndax bi mu fi ñëwee ba léegi di xoote ne yàllaa ma yéen ñun dañuy gën di wàññeeku rek te moom day gën di dolleeku léegi nag ñu joxe ay xalaat am ku ne man de li ma ci xam ba ñuy njëkk loolu sax ba ñuy defee loolu ba pare ba ñu dajee noonu nag benn màgget ñëw rek kaalawu kaala ku dëkk najat mooy dañuy kaalawu ni wàcceeku ci genn wàll gi nii ñu ne màgget mi yow bokkoo ci de bul xegsi de mu ne ah kay danaa xegsi ki ngeen di fexeel mooy sama première noonu ba mu faloo ba léegi daa falleeku kon du ngeen di fexeel lu ko fi jëlee kenn du ma ci jiitu ñu ne kon da ngaa ñëw xegsi la waaye mu mën naa soppeeku xam nga lu laab ak lu laabul jinne ba ñëwee na mu a leen lu fi nit wax loo xam ne ni jubut danaa ko daj loolu moom laa bëgg ngeen xam ko nu mu gën a gaawee waaw benn waay taxaw ne man de li ma ci xam nañ ko takk ci gëléem dàq gëléem ga muy dal ci kaw bopp bopp bi dal ci garab yi di dal ci doj yi bu yàggee dana dee ñu ko yàggaat xel kooku ni doom nga neexee boo ko takkoon ci gëléem waxuma dara gëléem gi day mujj sax di ko fóon bu waxee rek gëléem gi dana mujj dal ci ko euh, tiim ko di ko fóon euh, yow waxal beneen xalaat sa wax ji jubut euh, kenn ci ñoom jugaat ne man de li ma ci xam mooy daal nañ ko tëj ci néeg ndax nit foog mu lekk naan buñ ko tëjee ci néeg nag léegi garde caabi ji fexe wër néeg bu lekku naanul bu yàggee dana dee loolu moom rek laa ci xam te kon danañ ko duma te suñ loxo du ko laal mu ne ko yàggaat xel kuy taxaw di toog yàlla di la indil ay xibaar ci asamaan yàllaa koy jox ñam ci biir néew bi te ñun duñ ci yëg dara kon ba waxal leneen ñu ngi nag la gaa yi ne ko yow nag da ngaa soof màggen yow bokk woon ci jotaay bi ñu wala yaatal sax te lu nit wax nga bëgg koo dajji léegi lan la nag mu ne yéen ñi nekk fii màkka contre yonantu bi ñaata famille ñan ñu ne ko fukki famille lañ mu ne mu ngoog yéen mbir mi neex naa neex naa lijjanti comme fukki famille ngeen famille bu ci nekk tànn leen ca waxambaane wa ca gën a jàmbaar ëpp ca fit léegi nag kooka bu toogee bu ñëwee ngeen yëkkati kenn ko ne ci ñooñu jox leen jaas yi ñeen ñu ñu fanaan buntu néegam foog moom dana jug dem julli ci ca ca kaaba ka buy jug rek ñëpp dóor a ko ndox mu dee su boobaa mbokkam yi mënuñoo xeex ak ñëpp li ñuy def mooy laaj diye te seen diye mooy fukki gëlëm famille ne génnee fukki gëlëm mu jeex ndax bu njëkk arab yi fukki gëlëm lañ ko iskay ba xiin ba xiin sa sa sa sa xilaaf rafet na ñëpp d'accord ci léegi nag ñu wut fukki waxambaane kenn ku ci nekk yor a jaas yi ci génne ci famille yi ñu dugg buntu ñu taxaw buntu néeg yonent bi di nekk fa yonent bi nag guddi googa la ko sama borom ne ko bul fanaan ci sa néeg bi maanaam bu la fi bëccëgee te bëccëg ba nag la dox ay tànkam dem ci Aboubacar Aboubacar ne ah eh, ak ñoom Aïcha xale lañ ak ak waa kër ga ah eh, yonent bi de ñëw na waaye waxtu wi mu ñëw fii bokkut a lim daan ñëw am naaj bu tàng la fa ñëw waaw ah, mu ne leen waaw dama am lu ma sama soxla seen papa génneel sa njaboot dama leen a soxla Abubakar ne ko ah du ma génne ñu fi nekk ñëpp sa njaboot lañ ñëpp gëm nañ boo bàyyam rek moo ko gëmutoon Abu Quhaafa léegi nag mu wax ak ñoom ne ko waaw ah, damaa jot ndigalal gàddaay yi jot naa ndigal pour yow laa bëgg a ànd ak yow laay ànd ak tamit Abubakar kontaan keroog bay jooy Aïcha nee na mosuma foog ne mag da nga ko wax xibaar mu kontaan bay jooy léegi nag la woo yonent ba mu ñëw mu ne ko man nag yàgg naa préparé gàddaay ji gis nga léegi ñaari gëlëm la yafal naa leen ba ñu woos ma yafalaat leen ba mu mat ba ñu woosaat ba mu mat ñetti yoon loolu mu ne ko nag benn bi maa koy war bi jox naa ko ci yoonu yàlla yonent bi ne ko man damaa bëgg a mu ko ko ci njëg gu maantu nag mu ne ko danaa ut am naa fi benn jaam boo xam ne maa ko kii dana xam na yoon yi muy amir ibnu amir ibnu fuhayra moom nag njëf ko muy seen njóobel dabi ja ak abdoulaye ibnu urayqa moom lañ jël kon muy njóobal dabi ja amir ibnu fuhayra nekk kuy kuy kuy kuy kuy kuy sàmm gëlëm ya nga xam ne maanaam moom mooy moo leen ni moo leen ni indil meew maak ya ca aju léegi nag euh, ñi préparé rek départ nag ñoom nag dañoo doxee tànk dugg ca xuntuma waaye bër setul nag waaye fukki waxambaane yaa ngi ci buntu néeg ba yàlla na jox na yonent bi ngàndaay ne ko jàngal yaasin rek ba ci foofu laa yóbbu siru na mu jàng yaasin ba ci fu mu laayib suuf rek mu sànni leen ko ñoom ñëpp mel ni ay saako yu suuf lañu sotti seen bopp yi ñoom ñëpp tëdd di nelaw yonent bi jéggi leen moom dem ñoom fa lañ nekk di nelaw ba doon waxtu yi nga ne ba dix heures jëm onze heures benn waay moo taxaw ci état su xànkam bi rek seen ay ponkal yu tëdd rek tey seen i jaas yi mu ñëw fëgg leen ñu jóg nee na lu ngeen def fi ñu ne ko yonent bi la ñuy xaar dañoo bëgg bu génnee rek ñu dóor mun a yéen a ñàkk fayda xoole seen li ci nekk ci suuf gaa yi ko jug daal di xool ci bunt bi ne ah am na ku nekk ci néeg bi de ñu fexe ba dajji bunt ba fekk fa Ali ibnu Abi Talib waaye ba tey moom kenn laalu kenn dóoru ko fekk na Jibril ak Mikaayil la yàlla jox ndigal ñu koy garde mm. loolu nag lay maam xalifa yi nekk li si nii mm. moo tax mu ne wa quraysun waa quraysun xat xaawalahu fexeel nañ yonantu bi fii daari nadwatihim seen kër ak congrès ba te moo doon tey assemblée ba sa bisati bon na araaw xelaat yi te mooy xelaat yuy sànk yonantu bi waaye nag xarrahum xor na leen fii zaaka ca dajee googa alxarwaru xoraakon bi muy iblis fekkee na jotaay ba walakin li fi nekk kulla kaydil xuróori bépp pexem xor fa huwa moom xabaaw pënd la pexem xor du mujj fenn iblis moo leen wor indil leen ay xalaat bañ mujj sànni seen xalaat yañ jëloon jël xalaatam ba ni ma la ko nettalee hmm. haajara gàddaay na al Mustafa kuñ tànn ak aminu kuñ óolu ko ba is niñ ci ndigal ndigal la demee bokkut ak yonantu yàlla yunus hmm. moo tax yoonam mu jub waxta faw xeeñtu nañ israfoo ci jeexitalam waxaaba sooy na rajaawu yaakaar gars yi départ nañ topp tànk ya waaye eh, ba ba ci buntu xunt mi ñu ne ah fii de xadin xataal asar fii la jeexital bi jeexee de am ku taxaw ca ku toog ca buntu xuntuma di saw sangu bay dugg ca biir kii ba yonentu baa ngi leen di séen aboubacar a ngi leen di gis waaye ñoom mënuñ leen a gis aboubacar jooy na fa jooy yu métti sax euh, yonentu bi ne ko lan la mu ne ko ah dama xam ne bu ñu fekkee fii rey ñu ñu bari dem safara man bu buñ ma rayoon sax du am problème foofu nag laay laay laay ja wàcc ne ko laa taxsan inna laa maana bul jàq ñaar ñoo xam ne yàllaa leen ñetteel ñoo ne wax dëgg yàlla seen mbir mën naa jub mm-hmm. soo ko gisee ne yonentoo gën a mat beneen yonentu bu du moom xoolal Moussa bi mu jàqee ba gars yi ne ko inna la mudrakuuna dafa ne inna maaxi rabbi xaw ma yéen de waaye man sama borom xam naag man waxul inna maana inna maaxi rek te boo seetee maayatu gi la njëkkee mooy ànd gi la njëkk tudd ci yàlla yonent bi nag moom yàlla la njëkk tudd te daf koo def muy jam inna laaha door a wax maana waaye waxul ne inna maa dégg nga kon moo gën a inna maana allahu dégg nga loo teg dégg nga Euh, su ma xalaa topp wéetal na fawqal firaasi ca kaw lal ba mooy desal rek mooy bàyyi na suma xalaa topp bàyyi na fawqal firaasi ca kaw lal ba àll yéen xàll moom la fa bàyyi mm-hmm. ayu lay mu ci gaynde tahaaboo dana ragal ko axdaawu noon yi àll yu nag gaynde la goo xam ne kenn ñimut ko mm-hmm. lu tax xalifa mu ba ko fa mu ne kay yu àddiya ngir na jooxe amaanatan kóolute li zawiha ñeel seeni borom mooy bor ya xam nga yonentu kenn du moom koo xam ne nit ñaa ngi la bañ ba génne la dëkk bi waaye li ñuy bañ bañ yow lañu wóolu jël seen dénkaane yi jox dénk la ko boo doon keneen nga dem ak ñoom yaa ngi fa bàyyi sa alal sa saxaaba yaa ngi fa bàyyi seeni i alal waaye nga ne du ma dem mukk lu dul dama bàyyi ku leen jox seen seen i dénkaane yi moo tax xalifa ne xatta fii dana matal xatta fii bëri na bu matalee uma naaw ñu ñu wóolu ña bil amante ci kóolute xatu taksiir la waa bëri na kuñ mat kuñu wóolu rek mu matal kóolute loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa ma asra topp sotti na a turaaba suuf fawqa jumooin ca kaw mbooloo raqabatu mbooloo moo fuglu na ko fa fanaamati nelaw na roqabaa woy fuglu ña mooy li ma la nettali loon ca xisa ba fa la jàng yaasin ba ca fugum laa yëb suru na rek mu sànni leen ko rek ñoom ñëpp di nelaw su ko defee léegi nag mu jéggi leen dem bàyyi fa Ali ibnu Abi Talib mu fay leen bor ya fa ataa dikkal na alxaara xuntuma wala xatiiqu Abubakar na àndandoor la waaye ngay teg ne nas ju an kabuuti maanaam rab ak jargoñ nga wiqaawu fekk la lahuma ñee leen ñoom ñaar dañu dugg ca xuntuma rek benn garabu raatu ñëw sax fa benn la jargoñ ñëw lëngeen fa benn kii ñëw nen fa su ko defee na baggaay ñëwee ñu ne ah fii de la jeexital bi jeexee kii ne ko yaa ñàkk xel xanaa gisuloo fii nii euh, lëngeen beeg ga pitax mi boof dañuy démb rek lañ génn loolu dafa mën a nekk fekk gaa yaa ngi ci biir yàlla leen fegalee loola dégg nga de Euh, euh, mun mu teg ci ne xat macha dox na moom yonantu bi xaafiyan muy aji bu buñ ko waxee mooy doxee tànki neen loo teg euh, wa andiwut ko fii dafa dagg fi ma xool wa waqathu waa mi ngi dafa dagg fi wa waqathu fegal na ko alxamaamatu pitax mi bil bii di ca nen ya fii ca buntu xuntuma waaye tamit wa waqathu fegal na ko afiyaawu kere ngoon ya min raatin ca garab ak ndangentaan ka hmm. maanaam bi moo kii rek mooy ñaar yu ma nettali la rek hmm. mooy mooy pitax ma ak garab ga ak jargoñ ba ñoom ñaar ñoo ko dimbalee ba nga xam ne yàlla dimbale dafa da ndangentaan hmm. moom lañu tuddee ngu guy jéeri mag ñi fi de nguy jéeri dégg nga de xat euh, masa dox na xaafiyan muy aji fàndaañu doxee tànk wa taxturu dana toq daman deret daaxilal xaali ca biir ma xuntuma rijluhu mooy faaxil ja tànkam ba xal yaa bay aji kawe maanaam ma ngay du tànki neen la doxee waaye ndeysaan ba ñuy départ màkk ci ak xam dafa dafa nekk doj tànk lool tànk neen yooyu ñu doxee nag moo waral tànk yi dafa doon nàcc ba dugg ca biir xuntuma tànk yaa ngi nag ci alayhi wa léegi nag foofa nag ba ñëwee ba dugg ca biir xuntuma Aboubacar commencé dagg yéreem yi da yére bu ne rek mu dagg ko rek di di sakk yi ñu sakk pax yi ba mu des menn pax moo xam ne moo ci gën a rëy bu ko sakkee yërëm yi rek moom dootul amati lu solo wala yërëm yi dana feeñ euh, li mu bëggutoon a feeñ dana feeñ mu mujj jël gannaawam nga wéer ko ca pax mooma ndeke jaan ji foofu la nekk jaan ji matt ko natt ko métti waaye li mu bi mu ko dem ba ci yàgg mu sentir ne Aboubacar sa yaram wi tàng na di mu ne ko man damaa foog ne dafa am lu ma laal dañuy xormaal nu yonantu bi ba nga xam ne duñ ko ñemee wax sax li leen daal euh, mu ne ko mu xool ne ko man daal fant fam lu ma daal mu déplacé wu rek gis jaan ji waaye foofa nag la ko yonent bi moccale ca sa mu teqali ko moom am na sax ñu ne wax naat jaan bi waaw yow lu tax ngay màtt sama an ndoor bi mu ne ko man de dañ ne ma woon da nga jaar fii Fañaani te fii ngay def escale xam naa fi ay xat yu li mu di la xaar ma ñëw nag bëgg jël sama yaram wi riisu ko ci sa yaram bi mu dox sama digganteeg yow moo tax ma màtt ko waaw bi jéggal ko Euh, moo léegi nag am na ñu ne bi ko yonent bi màccee màccee par da ko jox ab sagar ne ko léegi boo dematee ba mu bëgg laa kii rek bu daan bu la bëggee daane waat rek tojal sagar bi rek nga naan ca ndox ma léegi nag ñi ko kii ñu ne euh, ba muy feebaree ñi euh, am problème dangar jooju moo moo moo wundeekuwaat te gisatuñ sagar ba ci la doxee ba génn àdduna ñenn ñu ne déedéet dafa feebar war a war a génn àdduna rek te njàqare génn àdduna bi yonent bi moo ko jàpp rek mm-hmm. bàyyiwut ko ba mu xëy génn àdduna waaye léegi moom ba ko yonent bi laalee ca la saafarawu ca saasa mm-hmm. wax jooju nag moo gën a xenu maanaam moo tax yàggut sax ñaari xar rek la dund gannaaw yonent bi teg ay weer mm-hmm. dégg nga mu ne taraka bàyyi nañ ñoom ñaar yonent bi abubakar ind ibni urayqa ci abdullah ibnu urayqa nuuxan gilem ya lii waa fii ngir na dikkal leen xëy na yam na yam di waxtu way woyee euh, sawaabu sax ga mooy bis bu ñu mën a ko nag des fi nekk fi euh, danañ def fi escale ñetti fan su ñuy dem rek ngeen ñëw indi gëlëm yi nag ñu door a ñu door cee wax Abdullah ibnu Urayqa mii nag ba tey borom xam-xam yi nañ wax nañ ne li ko yonent bi wan karama gi mu wax gisa ci yoon wi yëpp gisuñu fu mu tuubee moo ko xamee ibnu Fuhayra tax kon lislaam yàlla koy jox ko ko neex saara mujj na najlul atiq doomi Abubakar ju baax ja Euh, su ma yaraxa topp daana sàmm aha loo teg ilayhima jëm ci ñoom ñaar xaamir xaamir ibnu fuhayra moom moo daan sàmm euh, min xa min xusaa in min xatu saa in maanaam soowam gàtt ba wa kaana nekk na irtiwaaw di ak màndal min ha ci moom dafa dagg moom tamit ba tey maanaam xaamir ibnu fuhayra moo daan sàmm gëléem ya abdullah ibnu urayqa mooy njuumal dëbi jëla yi leen ni wan yoon wa ndax yoonu teggi la su ko defee nag kii nag Euh, bu ñu demee pare rek mur mooy ratt soow ma rek mm. fexe ba andil ko yonantu bi ak Aboubacar ca biir xunt ma ñu xewlu ci mm. terewut asmaawu tamit mi ngi toog te préparé ay ñam ca màkka di ko andil yonantu bi moo tax mu ne saara mujj na najlul atiq doomi Aboubacar ja mooy Abdoulaye ibn Aboubacar minhum di baaxee ko ci ñoom ilayhim di jël ci ñoom loolu mooy baagante rek bu ba bëccëg mi ngi dem ak a ñëw kullu yawmin bépp bis mi ngi def siyaaratun ak ziyaara wa wa inshaaw ak ay xibaar way siiwal ay xibaar heure bu nekk rek mu ngi ñëw di ko indil ay ay xibaar lu màkk xëyee tey mu ñëwee na ko màkk de def nañ joxal dajee nañ wax ne ku la indil sa ku leen indil sa bopp bi danañ ko jox téeméeri gëlëm wax nañ ne ku leen indil boppam Aboubacar bi danañ ko jox téeméeri gëlëm ku leen indil ñaari bopp yi ñaar téeméeri gëlëm tey daal ci loolu lañ xëy wax wax ba pare moom daal lu xew rek moo koy indil maam xalifa ne su ma taat yi topp daana dikk asmaawu ca kanam mooy faaxil ja ilayhima jëm ci ñoom ñaar bi taxamin ci ñam ku la laylin bépp guddi bi xufiitin ànd ak nëbbu guddi gu jot rek asmaa wooy ñëw di indil yonent bi ñam waaye day nëbbu de si lañ ko tuddee zaatu ni tàqay ni jëloon euh, musóoram gi rek xar ko bii mu takkee ko ñam wi bi mu takk ko ci ndiggam li daan ko indil di ci yonent bi su ma waafaa topp dikk na a dalilu njuumal dëbi jëla te mooy abdullah ibnu urayqa ba'da salaasin gannaaw ñetti guddi dégg nga àndahu nekk na fa moom nuuqu gëléem ya yàlla xaa xéemal rufaqaaw àndandoor yi ñoom ñu ànd ak ñi mooy yonent bi ak Abubakar ak ñaar ñeneen ñu ànd dégg nga ar dafa togg nañ ñoom ñaar xaamiran xaamir waqat kaana nekkoon na mawlan di mbaa yàlla li xatiiqin ñal Abubakar ku la ko wax maam xalifa loolu lu sew la di mu ne wasaaka loolu mu ne tukkeekoo na ci yaxtinaaw ak sonne mu ne sonne gi ma sonnee xam-xam ak mbiram yonent bi moo tax yàlla xamal ma ne moom mbaa yàlla ab abubakar la boppam la ci nam mu dégg nga defee na moom dañ ko doon togg ca gëléem ya mu nekkoon ku leen ku leen ci mbir yi dégg nga mu ngoog loo teg su ma saara topp dox nañ ñoom ñaar xas fan ci fétal fétal mooy rek moom la firi xat ne bi xayir fariqin mooy ci lu dugut yoon xat fu tafsir la daanaka mu ne bu doon xas fan la te woo bi xayir fariqin tamit xas fan mooy fétal mooy kuy dox te awuloo yoon waaye nag mu ne wali ahlil huda aji nekk la ñeel ñoom njub ihtidaawu ak gindeeku huddiita yàlla na jubaleef la te ko mottalee bayti bi euh, mu ne kuy dox lu jub boo awul yoon tamit sa mbir ma a jub waaye kuy dox lu jubut boo xawee yoon tamit sa yoon woo dana dëgg mu ne ñoom nii lu jub lañ doon dox même bu ñu awul yoon tamit yoon lañ aw léegi nga de faraahum séen na leen suraqatu suraqa wa quraysun fekk waa quraysi jaxaloo teg nañ maa la alal law yoxin donte ràññile woon na mooy teewaloon ne xadaawu dogal bi liñ bëgg léegi nag bi màkk xëyee def loolu wane ne bi maanaa daal ku ñu indil bopp yonent bi téeméer gëléem abubakar téeméer gëléem comme ni mu la ko waxee ci la suraqatu xëy rek sol mbubbam ko ngam ma sa bu ko defee euh, war naaru góoram wa départ ne man de mën naa leen a jëli xam na sax benn waay bu ne ko man de am na ñu ma daje yaakaar naa ñooñu la mu ne ko déedéet ñu ngay wax du ñooñu pour bañ mu yàqal ko kaañ bi foogoon ne foogoon ne maanaam mm, dana dana ko mën a ki mu départ am solee mbubbam koog ma nag daw di dabi yonent bi bañ demee nag dabi ko mu dema dema dema dem ba jub yonontu bi yonent bi ne suuf téye ko suuf téye fas wa ba ca wëq ya mu yooxu ne ko soo ma dimbalee xett li ma dootuma la toppati yonentu yi ñaanal ko yàlla suuf ba ko mu toppaat ko ndax alal dafa neex mu téyewaat ko mu ne suuf téye ko ba ca wóom ya mu téye ko mu jigi mu ne koo dimbali ma rek sama bàyyee moom yoon bii dootuma la toppati mukk mu ne ko ah, bàyyi ko suuf bàyyi ko mu dem a dem ba sore xelam te yàpp xaalis bi dafa bëri ñaar téeméeri jëlam koo xam da ngeen kii mu toppaat yonent bi waaye bam ne ko suuf téye ko yoon bii de jumba ko fasoo moom mujj di laal suuf moom ci boppam commencé nuur foofa nag la yooxoo ne ko waxuma la man waaye képp ku la nama dog sax bëgg laa topp danaa ko danaa ko wàññi xew ci loolu tamit bis ni ki tey dinaa dugg ci diine ji laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam nag la wax yonent bi ne ko nag bu ma watagum ndax su ma demee kon màkk dañ may ree su ma yóbboon lal bi màkka ñëpp may ree moo tax ñu ne man mën naa tuub sax ñu xaar watu ba ci kanam léegi nag ci la dem ñibbi ba ca ba ca ba mujj gi la gàddaay fekk yonent bi ci lañ ko door a wat moo tax waaye ba mu ba mu kiixee rek ba mu kiixee rek watuwut ca saasa léegi nag sa sol na allaamata mbubbam koŋ ma alxatiqata mu piire ma waaye wan saaba nuur na bi bii ak moom ndax wa saw bi mu fa seen wàll mooy wàllu yonantu ba jar daaw moolu moo wax mooy mool dafa suur ba kawar gi gàtt mu ngi bàyyi ko ci àjjirat hmm, dégg nga moo lu ngeeg woowa mu ngi mujj eh, moo mujj nuur ànd ak moom saaxa nuur na fil ardi ci biir suuf su mën naa daa topp mu xoo bi taaxaat ci yonantu bi fa waqaaw fegal na ko ni daaw xoote ba minal xilaaki ci alkande ka xoote gaa ko dimbale loolu sax dinay dimbale nit ñaareel kuy bëgg a laaj boo yuuxoo rek yàlla dimbale na ci ku nekk ci problème wa aboubacar aboubacar alxatiq aboubacar miñ goreel ki safara amaamal Moustapha ma nga ca kanam yonent bi xii nan léeg-léeg wa moom waraaw ma ca gannaaw xii nan léeg-léeg Aboubacar diirab liñ ànd yi dem ba Madina léegi-léegi rek day war yonent bi féetee ko ndeyjoor la féetee ko càmmooñ yonent bi nag loolu na mu ci lii mu ne ko damaa bëgg ku lay bëgg rey fekk ma ci ndeyjoor rey ma te nga mucc ku may bëgg ku lay bëgg a rey fekk ma ci sa càmmooñ rey ma nga mucc mu ne ko Aboubacar doxal ñu dem maag yow yëpp duñ deexagum léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag abu kii kii suraaqatu tuub na Euh, waaye moom ku ku yéeme la ki abi ku ñor la bi mu laajtee nag kana dem pour dabi yonantu bi ci joxal bi waa Màkka teg ñu ne ko mooy suraqatu mu ne tey yonantu bi wan ko biddiw bëccëg man koy waxuma moom moom moom ñàkk nañ ko dana tuub waaye léegi li ma leen di wax moom bu ñëwee lu mu leen mën a wax ne gis na ko tamit bu mu tax yéen ngeen bàyyi bi seen diine kii <laughs> ci la def wayam yi ne banni mujlit inni axaafu safahakum suraqatan yastaqri bi amri muhammadin alaykum bihi allah yufarriqa fa yusbiha satan ba'da izzin wa su'dadi mu ne yéen waa bani mujlid maa ngi ragal seen ak dese de suraqatu mi dem di toppi mbiram yonantu bi loolu la yonantu bi na ko wan bi dëgg bëccëg waaye bu ñu lu mu leen man di wax ne moom la gis tamit bu mu bu mu tax seen mbooloo mi de kon da mujj teqalikoo gannaaw ba ngeen nekkee di ay sang mooy da ngeen mujj nekk di kuy toppee gannaaw ba nga xam dañ leen daan topp waaye nag ba mu demee ba ñëw moom tamit tuub ab léegi xam nga ab abi lahab abi jahl dafa dafa xeewu ba mu ñëwee rek mu ne ko ah ndeke tuub mu ne naa ci diina ji gis mënu ma koo wax li ma gis boo ko gisoon foog nga dugg ci diina ji ci la ko waxal ne ko aba xakam wallahi law kunta shahidan li amri jawaadi tasiixu qawaimu ajibta walam taskuk bi anna muhammadan nabiyun bi burhanin faman za yuqaawimu mu ne ko wallahi yow aba xakam soo jàkkaarloo ko nag sama mbiram naaru góor yi waxtu way tànkam yey suux ci biir suusi kon dangay nga te kon doo am benn sikk ne yonentu yàlla muhammad yàllaa ko yoon yónni kenn mënta xeex ak moom mooy kon wax na ko loolu dégg nga hmm, yokk na ci yeneen bayti sax hmm, ngoog dégg nga foofa nag léegi xam ne gaa yi seen mbir nag seen seen pexe jeex na parce que topp nañ tànk ya bam jeexitalee ca xuntuma taxul ñaam yoon ki jàllar ko teg waa jañ tegaloon mu dem pour war leen a dagg ñib si na sooy amuñ yoon ci la gaa yi nag ne léegi li fi des daal asmaaw bintu abubakar nii di da baagante moom ku ko dóor ñu wax fi baayam nekk ak yonent bi gaa yi nag tepp ko commencé ko dóor bañ koy dóor nag ne ko wax ñu fi sa baay ak yonent bi nekk rek nit yàlla nag ku baax la mu bañ ñi dóor ko sonal ko ba gaañ ko ci la dégg ci lañ dégg ay jinne ay kàddu yuy waaye te gisuñu jëmm yi ndekk ay jinne lañ ñu ne yéen ñiy laajte yonent bi ak Aboubacar tey ñi ngi xend ci xaymatu umu mahbat te mooy koy kam nga ku jëmoon tey ku jógee ko woon Kaolack jëm si Dakar Euh, ñu ne yegsi na jam ñaajo dootul boobu ngi mel ni xaymatu ibn Ma'bad ni mel ak fële presque jam ñaajo la léegi nag gars yi ne ak ah, ñun de sori nañ ñu mënti leen fii lañ ma bàyyi na asmaaw waaye bu taxutoo nag wayu jinne yi kon dañ ko dóor ba rey ko kon yàlla wax jinne yi ñi way annoncé fi yonent bi toll pour sauver doomi Aboubacar ci moom lay xalifa wax nii moo tax mu ne alama xamal na aljinnu jinne ya xaw ma woo nitam ña bi xinaayin ci way luñ xamal xabaral Moustapha xibaaru yonent wa neex ma baax na xanaa waya su ma maru fekk romb nag bi ummi maxbat ci ummu maxbat fas fas xaw ñu sàkko naanu libaanan soow waaye wa maa la dayha nekkul fi moom saqaawu soow loolu nga koy firi waaw foofu lañ ñëw nag ci xaymatu ummu maxbat ne ko ndax amoo fi soow ñun de dañoo bëgg lu ñu kii ummu maxbat ne ko ah man de benn gàtt rek laa fi amee tëlee moo ko tëree wëtti mi ngi nii yi si def yëpp dem nañ mu ne ko boo ma joxee ndigal moom ma def ma ma génne ci soow léegi léegi mu ne ko mën nga koo génnee soow mu ne ko mi ngi nii yaa ngi nii yonent bi jël ténkam lu sell rek laal ko ca batt ba rek commencé ratt rek ba euh, ratt ba këll ya fees mu jox gaa yi ñu naan moom mu door a naan keroog la wax xadisam boobu ne saaqi naasi axiruhum shurban kuy naanal nit ñi yaa war a mujj naan te kuy attaaya boo déggee kii da ngaa war a jox nit ñuy naan su ko defee nag mu door a rattaat ba këll ya fees mu jox ko waa kër umu mahbat umu mahbat nag fekk abu mahbat dafa génnoon mu ñëw rek ne ko waaw yow lii nag mu kaay ma nettali la benn waaye fi ko ba mu pare mu ne ko bul jeexal kooku mooy nitu Quraysh ki fu mu jaar mu ne ko fii la jaar kooku daw mu départ daf leen ci yoon tuub waaw moom way way doon jinne yi way mooy lii mooy jazallaahu rabbu naasi xayra jazaihi rafiqayni xalla xaymata xaymatu mu mahbati huma nasalahuma bil huda fahtadat bihi faqad faasa man amsa rafiqa muhammadi loolu lañ de wayu bëri la hmm. dégg nga de loo teg massa euh, moom lay wax siin nag mu ne massa laal na taaxaa yonantu bi hmm. aji faa gàtt bu lompañ ba hmm. kaa xewoon xawoon na tataraamaa di daanu xusaalan ngir xoos waaye ba mu ko laalee batt ya fa darati wasal na aj gàtt bu lompañ ba hmm. raw yan mandal na min albania ca soowam ma alxawma nit ña turan boole seen wala awaani ndab ya milaaw aji la min baax saalika gannaaw loolu moo waral aslama jébbalu na asaw ju jëkkër ja israa ba mu gisee maa la nga xam ne addarat wasal na ko ah dégg nga min libaanin ci soow lu ko wasal yaminu ko ndeyjooram ba satlaaw bay dotti xakkoon bu jëkkër gi ñëwee gis la ndeyjooram yonent bi rab rek yoon yi moom dem tuubi ca saasa su ma jaddu topp farlu nañ fi sayri ci dox ku la xadaatin bépp xëy fa uni xat ya sa léef na at baawu at baawu di taybata ca tayba tur la ca turam ya tur beneen gu di ko tuddee waaw di ko tuddee xatbaaw baaw mooy ponkal euh, waaw mooy ku mën a dagg distance bu sori hmm. yàlla may na ko mën naa dagg distance bu sori te du sonn dégg nga de wa banu xaylata banu xaylata salaa salaasa miraar yi ñetti yoon raqa boobu fugul nañ ko yonantu bi xataa taf yi bay dikk afiyaaw keringoon yi hmm. xam nga ko am gan rek bët bu set ñu ne tey la ñëw rek te artu bi jug bët bu set rek ñu tëgg ndënd ya hmm. dóor tabala ya commencé di way ne tay da dana ñëw tay dana ñëw hmm. ba ngoon jot du ñëw defaat ko ba naaj wi tàngaat ba ci ñetteelu fan bañ tasaarooxee rek bay ñibbi la benn yahut taxaw ci benn état su xànkam yooyu hmm. seen yonantu bi mi ngi ñëw ak Aboubacar sol seen yëre yu weex Abdullah ibnu Subayru lañ dajeeg hmm. Subayru kii lañ dajeeg moom moo leen mu mu jugee ko woon Saam moo leen nag solal ay yëre fekk moom mu demoon kii solal leen yëre yu bees ndax booba sa yëre yee lañu benn yëre rek ñaami ko ci fan yooyu yëpp day mujj tilim moo tax mu ne euh, su euh, euh, subayru la ku ñu wax subayru moo leen ko solal moo jur Abdullah ibn subayru hmm. wa raawum gis na leen baadul yahud lenn ci yahud yi hmm. wa naadaahum mu xoote hajiran ca njolloor ga iskaana ba nekkee mi nu ci irtiqaaw ak yéeg hmm. moom laa la nettali noonu faraahum seen na leen moo leen seen bi na siyaa bi ñu demee weex ay yére fa naadaa mu xoote bi xudóomil haadi ci dëkk ak yonantu bi dégg nga de waxu xexeef na al al al al al al nidaa wu gis koo war a xoote nga war a xoote mu ne yéen waa banu xaylata yéen a ngi tasaaroo waaye gan gi ngeen doon tertu fan yi yëpp ma nga nelee séen naa ko mi ngi ñëw ci la gaa yi nag dooraat tabala yi dajee xaat wata laqaaw dajeeg nag moom xen da nafata fa nafata xawmun aw nit naasarooku dimbalee nañ ko wa kulluhu ñoo ñëpp këramaaw ñu tedd lañ léegi nag foofu la gaa yi ñëw foofu euh, naxalatu place la jàngoon ko ko sax ci benn benn place la bokkut ak bële nag ñu ko fekk ne ko ñëwal nga dal suñ ko yonentu bi ne leen bàyyi leen ko man dëkk buy lekk ay dëkk laa bëgg gaa yi téye nosxaat gi ne mu ne arxosimaamaha fa innaha zaatu zaatu amrin wari daaw sidiq làmbaay aboubacar xillun kerl li taxa ñeel yonentu bi may sat jàqeef na xona faaw saxaba yi bay noonu seen diggante bi ci làmbaay googu ndax yonentu bi bi muy ñëw xàmmeewuñ ko ci aboubacar xàmmeewuñ ko ci yonentu bi ñoom ñaar ñëpp rafet ñoom ñaar ñëpp dañoo wax ñoom ñaar ñëpp dañoo sol yére yu weex mu jige aboubacar nag jël làmbaayam nga di ko keral bi ci lañu xam ne ah ki ñuy keral mooy yonentu bi kii keralaate mooy Aboubacar waaye njëkk loolu yonentu dafa defar ay nitam mënuñ leen a xàmmee moom sallallahu alayhi wa sallam. baax na fa mu ko. weer way aji leer bi xubaa ci xubaa masjidu xubaa yi yonantu bi sax na fa mu diir am na ñu ne sax na fa fukki fan ak ñeent am na ñu wax ne sax na fa ñaar fukki fan ak ñaar dégg nga bu fekkee ca boo demee ci buxaari yi ci xadiisu anas yi dafa ne fukki fan ak ñeent la fa sax boo demee ci ba tey ci saxiix ci xadiisu Urwatu dafa ne sax na ci bani amr euh, lu mat maanaam fukki guddi lu ci mun di xam wa aqaama sax na albadru weer yu asani yu bay aji leer bi xubaa ci xubaa wala tan ab diir ñaata fan la dañ ca weerante ko biñ la ko waxee ñi ne ñaar fukk ak ñaar ñii ne fukk ak ñeent kam xawat bari na bu mu làqee xubaawu ak yëkkati ko bi daalika ci loolu masjidu qubaade sax googa yonentu yàlla Muhammad sax fa tax na mu am ak yëkkatiku dara joo xam ne ju kawe la ba alquran mu ji tudd ko moo tax taw dana ko wax sax asasa fondement na al masjida jàkka ja al mu asas ba de buñ fondement bi waa ci ragal yàlla mooy jàkk jiñ fondement ci ragal yàlla da day him fa ñoom wa jaa dikk na fii ci jàkk jooju asanaawu tàggat yàlla yàlla tàgg na ko alquran mu ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquuma fiihi ndax fiihi rijaalun moom jàkka jooja nag kon yàlla tàgg na ko mooy jàkka ji ñu njëkk a fondement bi bi di dem ca yoon wa saara mujj na sax yaat yi daan dikkal jàkka ja baax da kulli xamisin gannaaw alxames bi ne gannaaw alxames mooy àjjuma wa bi lis nay ni ak bisab altine daana fa ñëw di ko siyaare siyaare si na ko war siyaare si na ko dox innaa naka loo xam ne kawe la loolu daal ak kawe la ci jëlee dégg nga hmm, ba mu fay ba mu ko fondement yi nag mu julli fa dafa jublu baytil muqaddas ndax moom fukki weer juróom-benn yam njëkk a def madina yëpp baytil muqaddas lañ ko digaloon mu doon julli pour wan rek wan ñëpp ne moom jàkka yëpp la formal euh, dégg nga rek la respecté euh, wane tamit ne yonent yo ko jiitu woon yëpp formal na leen. xibla yi tamit muy jubluwaay yëpp tamit maanaam respecté na leen su ma saara topp maanaam dox na albadru weer wa mu niiru bay aji leer fa waa mu dikkal waa di yéen xuur xiila wax na fi ismi ca turu xuur wa raani taaw la xuur wa tudd mooy ca xuur woowu nga xam ne fala fekk fala ko fala ko fala ko jullit jumaa dabe ba yonentu bi génnee bàyyi ko xubaa waa bani amrin yëpp ibnu awf dañoo dajee dégg nga de mu ne ko nag léegi dooñu romb yëpp ne ko dooñu romb kër ak yiw a ngi nii ci suñ kër yi mu ne leen bàyyi leen gëléem gi dañ maa digal may dugg ci dëkk buy lekk ay dëkk waaye duma dugg ci dëkk buy dëkk yi lekk arqu imaamaha fa innaha zaatu amrin foofa nag ndeysaan am euh, sallallahu alayhi bàyyi ko giléem gi dox léegi na fa la ko jumaa jotee ci banni saalim booba mu dem a nga daloon ci kër kulsum ibnu hadmi mu julli foofa nag jumaa ca biir wa wax nañ ne mbooloo ma matoon nañ ñeent fukk am na ñu ne man na téeméer nit téeméer nit nag moo gën a siiw da ci xurwa na ma nga tudd taaw foofu mooy première jumaa ci ñu njëkk taxawal ci kaw suuf ndax yeneen yeneen xeet ñu jiitu woon xamuñu woon jullit juma jullit juma yonent bi rek moo ko jagoo ak aw xeetam foofa nag la njëkk a taxawalee juma kon moo tax juma euh, mooy moo tax yeneen borom yenn ngir yi ci lañ sukkandiku ne ay nit buñ dajeexee ci benn bayal ne juma rek wér na ndax yonent bi juma am ci ndendab kese rek la ko la ko taxawal moo tax yéen nga gis ci prison yi léeg-léeg ñu dajee ci benn place léeg-léeg ay moodu moodu tamit dajee ci benn kii waaye bu masabu Malik moom du ci d'accord fokk day nekk masjidun jaamia boo xam ne bu mu nekk néegu ñax nekk lu ñu xëddee ay gattax nekk loo xam ne dafa war a gën a foor tabaxi dëkk ba waaye bu ko tabaxi dëkk ba gën a foor bu mu nekk loo xam tamit boo jàkkaarloo seen asamaan moom foog mu xam jidaar waaye foog mu xam saqf loolu mooy ci masabu Malik dëkk bañ koy sampal nag na fekk tamit euh, maanaam ñu bëgg daal mooy jumaa balaa mën a am xarafi masjid muy jàkka na na dajee ci moom buñ ne masjid bala ñu dëkk tabax juma na fekk d'abord nañ xam ndox muy maaw waaye dëkk boo amul ndox lu mu rëy rëy ci gent la jëm waaw ndox moo yore nit waaye nag ndox fu mu xam rek bu yàggee bayukaay bu yàggee xaral xam ma Omar ibnu Xataab dafa naan wax ne waxee su yujudul maa yujudul maal léegi nag bu ndox amee muy masjid bi si sa miim gi euh, siin bi mooy saqfu ko fokk mu am toiture boo xam ne day dox sa diggante ak asamaan la jumaa joo xam ne boo taxawee ni jàkkaarloo asamaan sax ci côté yëpp kooku daganul Madinatu na am am na côté bu ñu firi léegi-léegi dañu am tudde boo xam ne buñ ko dindee nii rek nga jàkkaarloo asamaan si waaw mu ngoog buñ ko dindee nii rek nga kiyaat ko sallallahu alayhi wa sallam dégg nga euh, léegi jidaar bi mooy foog mu am miir bi bu téye jàkk ji nii mu wër euh, dégg Euh, deel gi am na ñuy wax ne mooy mooy imaat mooy maanaam keno keno yoo xam ne moo koy téye dégg nga loo teg waaw foofu la jullee juma sallallahu alayhi wa sallam mooy premier juma ci ñu njëkk a taxawal ci kaw suuf mu xutba xutba bu yéeme téere yi sunna yëpp parce que indi nañ xutbaab kooka mooy xutba gi mu njëkk def ci kaw suuf saraa yi sax am na lu mu ci indi <coughs> loo teg Euh, waaw adrakathu jot na ko asalaatu julli fii ali amrin ci bani amrin foofu la ko julli ko fekk moom laa la wax noonu mhm. fa aqaama taxawal na alxunafaaw saxaba ya luñ taxawal al arubata julleeg ajjuma aruba ci turam ya la mhm. maanaam mu taxawal julleeg ajjuma foofa ca ca foofa ca jàkk jooju foofa dégg nga amara digal na al Mustafa kuñ tànn ka bi taarixi salaami ci taarixal at mile foofa nag la waxee Ali ibn Abi Talib parce que fa la ko Ali ibn Abi Talib dabee xam nga moo fayoon bor ya joxe ndénkaane ya nag dëggee tànk ak sonn ci yoon yi ba fekk foofu yonent bi tànk yi nàcc mu jug rek yonent bi jig la nga ko fóon ko nag ndeysaanam dalal ko nag foofa foofa nag la ne ko nag léegi taarixalal atam gàddaay gi xam nga njëkk loola ñoom ni ngi daan taarixale ci xamal askandar ñeen ñi daan taarixale ci Kisra ñee mujj gi ñuy taarixale ci juddu ko Isa mujj gi ñuy taarixale ci amal fii mu ngi ñeeyu Abraha wa waaye nag ci la jullit yi nag bàyyi taarix yooyu yëpp jàpp hijra gi ba léegi ko wallaaj mu ne la hijra gaa ngi toll ci nangam dégg nga de amara digal na al Mustafa kuñ tànn ki bi taarix yi salaami ci taarixal mi lay xat gi nga xam ne fii nekk na ci ay hijratu gàddaay gi alxaraaw ba aji siibu sa gàddaay kenn dut ko fàtteeti ci àdduna fi wa ataahu dikkal na ko asihru goroba arad yi kuñ gërëm ka fii ba ni amrin wa maawu ànd naag moom nisaawu jigéen jigéen ñi wa doxafaa ñu lompoñ Ali la bi muy ñëw indiwaale indiwaale na mbooloo mu bari mbooloom jigéen ñu bari dafa ànd ak ñoom ak yi ñoo xam ne dañoo lompañ mënuñu ko na ñëw ko bu ñëwee nag mu wàcc ci kër kulsoom ibnu Hadmi roy yonent bi nam nam nam nam jaaree woon foofa ba mu ñëwee rek yonent bi juuga doq ko nuyoo ko doq moo tax doq sunu la kenn ku ne akulaat sa morom su ko defee nag léegi nag yonent bi jooy ngir yërëm xàll yu ndax tànk yaa ngi sotti ay deret waaw ñu ñëw foofu ndeysaanam dégg nga bi bi muy ñëw sax mu ngi mu ngi kii bu ko defee nag mu indi leen dégg nga fatimatu bintu rasulillahi ak fatimatu bintu asad ñu mel noonu ñoo ñëpp ñëw dégg nga mu ngoog moo loo teg kullu xayin bépp gàdd min naasir yi ca ko doon dimbale ataahu dikkal na ko yebbu tax yi di sàkku an yekkoona ba nekk fii ci sawaawu sax ga yéen fu romb rek mbooloo mooma ne ko ñëwal nga sax fii ci ñun danañ la protéger loo bëgg rek danañ la ko defal Ablaay ibnu Ubay rek moo ko wan ga kii moom dafa ñëw mu ne ko demal soxlawuñ la demal sañ la soxla ndax moom ndeysaanam dafa fekk bis boobu lañ ko waroon a fal buur bañ war a nekk jiitu kii eh, dikk ak yonent bi moo yàq falam nga nit ñëpp daw ba ko fa nag mu du moo tax moom mu noonoo yonent bi ba ni mu génn àdduna wala hum nga def waqaala waqaala wax na lahum ñaa leen bàyyi leen gëléem gi innaha naka moom zaatu amrin borom ndigal la lam tuxaalib du xuutee fii am riyaa ci ndigalam xaswaaw gis nga fële at baaw la ko tuddee woon tey fii mu ne xaswaaw ci turam ya na mooy ki mën a dagg distance bu sori te du sonn mi bàyyi ko ci àq saa rek léegi nag gëléem gi dem di dem di dem tey ba fa jàkka ji nekk fekk boobu marbadu tamri la kon weerukaayu tàndarma armeel la ko lu ci mun di xam ay ñaari jirim ñoo ko moomoon kenn ka tudd sëxlu kenn ka tudd suhaylu giléem nga dem rek goor fa yonent bi ne xaaxu naa man si fii mooy wàcc waay bi nag léegi la waaye góoram gi goor na ñu ne ñaari yoon muy door a wàcc goor na fii dem ba fële mu door a wàcc fam mu goor na foofu mu door mooy xabroom ba mooy tollu nekk si lut na Aïcha yonent bi ne xaaxu naa man si gaa yi jàmmalanteeg moom nag foofa nag euh, moom lay wax si nii moo tax mu ne barakat goor na mara tey ni ñaari yoon summa alqat am na summa ta alqat topp mu sànni bi jiraanin ci loos Euh, mooy mooy lii yëpp gën doq gi nii boo ne jiiraan rek muy firi dëkkandoor boo xamee yaa boo ne jiiraan rek amut dëkkandoor na amut amut yaa mooy firi loos mi laa goog ñaal na ko wa min ha bàyyi ko na ca giléem ga ruqaawu ŋaax bam wàccee foofu na la door a bëmm noonu ŋaax nag yonent bi ne ha haahu naa man nag gars yi di jàmm santeeg moom di barkeelu di ko nuyu abu ayuba ku muus la moom ba gars yi nekkee ci soxla yooyu rek la takk bagaasam bagaas yonent bi rek yóbbu këram yonent bi jàmm santé ba pare kenn ku nekkoon xëccal ñëwal suñ kër suñu préparé nañ la fa dal defar nañ saal ba defar nañ lii mu ne waaw léegi an samay bagage gaa yi xool ne am ma nga kër abu abu ayuba abu ayuba ko yóbbu këram de yonent bi ne almaru maa rahlihi nit ku ne ak bagaasam ñooy ànd moo tax boo bëggee booy tukki te bañ sa bagage yi réer boo jëfandikoo yonent bi te doo sonn waaye boo duggee oto bi dugal ko ci arrière bi dugg ci oto bële da nga am problème moom li mu jàngale du réer mukk wa abu ayuba abu ayuba baaw may na ko ilaahi sama yàlla ji bi nusoolil haadi ci wàcc ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wan ñooma baax na xabaaw may na teraanga koo passé ba mu nag moom état xànq la xamoon euh, abu ayuba sàkk pour yonantu dëkk ci kaw moom mu dëkk ci suuf yonantu bi ne ko déedéet ci suuf laay dëkk mu ñaan ñaan saraxu saraxu yonantu bi ne ndax moom dafa bëgg lu suufe mu jigi nag abu dem dëkk ca kaw waaye yonantu bi ci ak mbaaxam bët bu set bu xëyee dana yëg ci kaw nuyu leen euh, door wàccaat ci suuf léegi nag abi ayuba moom li mu nekk ci kaw yëpp kanam dalut mi ngi bëgg rek yonantu bi ñëw ci suuf mu ne ah ñun di ci problème lañ nekk fu ne ñun suñ boolab añ bi buñ ko tegee di añ ci kaw yonantu bi lañ ko teg ndax mi ngi ci suuf suñ tëddee suñ kaw lal yi ci kawam lañ ko teg bu ñuy dox tamit ci kawam la ñuy dox yonantu bi nag boo gisee ma tànn suuf ñi may seet si dañuy bëri te su ma dëkkee ci kaw yow nga dëkk ci suuf dana la déranger ndax gars yi ñëw dañ jaar kër gi jaar toor ñëw sama kër gi mu tànn foofu nag waaye yonent bi nag faa yu dem nuyu ji leen benn bis nag mu dem di ko nuyu rek tombeek ah, bi ah, soxna Abi Ayuba da daan root ba mu rootee nag euh, ni muy sottee ndaali rek ndaali pot te xam nga état su xànq mu ndaali tojee rek ndox mi ci suuf lay jëm mu jël mbooleem yéreem yaag yére Abi Ayuba yëpp nëpp ko ci ngir bañ ndox mi roogaat dal ci kaw yonent bi yonent bi xëy seetlee ra ne waa lii nag mu ne ko ndaali li moo tojoon ñu bañ ndox mi ñëw ci sa kaw ñu nga ñëw ci kaw foofu la yonent bi door a d'accord yi dem ci kaw moom lay wax si nii moo tax mu ne raawatuuhu sàkku nañ ko yarqaa mu yéeg an yarqaa li en laa jëm ca kaw walakin li fi nekk sha'nuhu mbiram rif ko mooy jàppandal bi waraa ci mbindee fa xayaaw kersa bëggul sonal kenn moom yonent bi bu fekkee mukk fa ñu sonalee nit dégg nga de nag euh, ba'da hada gannaaw lii nag raqaa yéeg na li en laa jëm ca kaw walakin li fi nekk nag xii na xaafoo waxtu wañ ragalee an ba yola mi ne ci moom maawu ndox mi mooy ba ñu ragalee ndox mi sol ci kawam daanu ci kaw mooy xisa bi ma la nettali rek ci la yonent bi door a nangoo xéeg ca kaw dafa dëppaat nag xam nga lii mu tamit ni ma waroon a jiitu mooy mu ngi wax tertu bi ne wa jawaar yi ba nii najaar jéebéer yi ba nii najaar ya euh, tuxan nii ñu ngi way bi dufoo nin ci ndënd wa taaba tey na mi naa ci moom alxanaa woy ya ñu ngi wayal yonent bi rek tarban ngir ma ji ñeel ku yarqus nañu lay fecc tiixan ngir kontante watuxal nii di ndokkeel bi ci dikk ga waxu xëxeyib na xanaawu ndokkeel ga ñoom ñëpp ñu ngay fecc rek ne nax nu jawaarun min bani najaar yi yaa xabaza muhammadun min jaar yi bu la neex nga ne nax nu jiwaarun min bani najaar yi boo ne jiwaar mooy ñu ñun ay dëkkandoor lañ nag boo ne jawaar mooy ñun ay jéebéer lañ kon ci ngay déggee ne fecc mos ka nekk jëfi gor ba ba jamono yàqagul sax gor du fecc fecc moom jaam rek ko daan daan toog nii fecc ak bëre bu njëkk bi sang yi ñoo daan toog daje buur yi dajale seen jaam yi ñiy bëri ñiy ree waaye gor mos ta bëri mukk nit ku baax du bëri léegi nag euh, tabaarkàlla booba nag booba ba jamono yàqoogut euh, lu nit bon bon bon mën a jur am mbër maanaam loo sëyadi sëyadi mën a jur am mbër waaye jamono ji de ngay sëy dëgg dëgg door a mën a jur mbër mbër yi di gagné ay fanweeri million ak juróom benn fukki million ku jigéen ku sëy doo leen mën a jur dégg de ñii way naan talaa al badru alayna min saniyati l wadaa'i wajaba shukru ma daa lillahi daa'i di dem ba waye jeex ayuha al mabuusu fiina jita bil amri ko doon wayal jibiir yi rek kontaan te di tëgg ndënd ya nag sallallahu alayhi wa sallam nga dégg nag ba mu ñëwee ba dal nag kër abi ayuba ba mbir ya jeex ci la laaj ne waaw fi sama giléem ngi góoroon ku ko moom ñu ne ko ñaari jirima leen moom kenn ki sëxlu kenn ki soxaylu yonente ni dem leen ngeen xool ma leen moom ne ko mën def tafaaw la ci la gàtt nga ne ah mbir mi dana yomb parce que sëxlu mooy firi lu jàppandi soxaylu moom kenn mënu ko firi ci olof buñ ko tasxiiree euh, euh, tasxiiru ci olof boobu kenn mënu ko andi lu jàppandi rek la léegi nag ñoom ñaar ñoom ñu ñëw mu leen man de place bi laa bëgg ma ko bëgg a def ni ñu yàlla ñoo ngi ne ko ñun jox nañ la ko addiya soxlawul tonti ko waaye nag nit ku baax du luñ ko jox mu jël yonent bi ne leen déedéet jaay leen ma ko rek ci njëg gu ñu mujj waxante ci njëg gu maandu ñu waaye booba yonantu bi yorewut ñu ngi ko mujj jëndee ci alali Aboubacar moo mujj fay njëg ji nga xam ne moo ko jënd dégg nga dégg de moo tax mu ne fastara jënd na min maali xatiqi ci alli Aboubacar min ay taamin ci jirim lahum ñaal na leen marbadan weerukaay bu ko ñax na baax na siraawu njëg njëg goo xam ne nii gu maandoo maandu la ko yonantu bi mujjee jëndee ci ñoom ñaar ñooñu nga xam ne ñoo moomoon ñoo moomoon marbat ba dégg nga dégg am nañu ne ñeenti dinaar la euh, fa banaa tabax na almasjida jàkka ja atiqa ju piire ja wa kaana nekk na minu ci moom di duni ñeel dini rifaatun yëkkati ko wasanaawo kawe maanaam nag di euh, ci la tabaxee jàkkaam ja nag moo tabaarkàlla jàkka ja nag moo yëkkati diine ndax mooy taaral lépp moo tax tamit ku euh, yonentu bi kenn la gis nga ba mu yëkkatoo tabax kër jumaa la njëkk a tabax jàkka ja ba mujj gi sax amut kër ba ni mu génn àdduna dafa mujj rek tabax ñaari saal ca pegg jàkk ja kon loolu lañ njëkk a yittewoo uh-huh. uh, am na ñu ne mi ngi mi ngi ko jëndee fukki dinaar fukki dinaar lañ jëndee jàkka ja loo teg léegi nag ñu di ko tabax nag bañ koy commencé tabax nag yonent bi ñu daan xenu mool ci la bokk di ba bu see bu ñu xëyee rek mu dem nekk maçon ñu tabax jàkka ja benn bi sax mas na ñu yëkkati nii mu jël làmbaay gi dox ko ci diggante bi rek jibril xàcc ko ne ko bàyyil kii yi muy dal ci sa kaw pour poussière bi moo tax moom dañuy tabax da doon tabaxaale di xenu mool yo di indi dégg nga de sax fofoo téeg ma bil jëri di nekk na ci xobi tàndarma ay xobi tàndarma lañ jël lalee ko ci ak xaa kii ya bant ya wa wa samku té maanaam gudduñaay ba minu ci moom xaamatu sax si mooy taxawaayu nit gudd ñaayu jàkka ja hauteur bi mooy mi ngi tolloog nit taxawaayam maanaam nag nit koo xam ne guddut bu xëpp gàttut bu xëpp ñu ne taxawaayam ba moo tolloog Moussa yonentu yàlla Moussa nag tamit taxawaayam ba moo tolloo ko nag xetam wax dégg bu ci nekk nag mooy mooy mooy jàkkaay sayyiduna Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga euh, neex ma baax na zaakal binaaw boobale tabax wa bihi ci jàkka jooju xat aqaamoo la saxal la la la dëkk ahlu suufa dégg nga waa ahlu suufa fa lañ sax lil ibaad lañ taxawal ahlu suufa waa ahlu suufa lil ibaadat ngir jaamu yàlla kulluhum ñoom ñëpp na xurabaaw ñu tumuranke la ñoom matoon na ñeenti téeméeri nit ñoo xam ne ca peraw jàkk ji la ñuy fanaan ku war a indi reer ku desal reer desalal leen su ko defee tamit euh, matoon na ñeenti téeméeri abi hurayra mu doon seen njiit mu nekkoon ndeysaan koo xam ne lu yonent bi indi rek mu mokkal ko xamuñu woon benn bëgg-bëgg lu dul lu yonent bi wax ñi di ko mokkal rek euh, ku defar xeer xoole euh, yàqal leen ku am looy liggéeylu tamit dem liggéey liggéeyloo leen ko loolu rek moo doon seen liggéey ba dégg nga loo teg moom lay wax ci nii sax wal aminu ku ñu xóolu ko alhaadi kay aji ginne mbindéef ya hmm. yu fariquhum ñu leen di teqale fi sax bi ci saxaaba ya turan boole seen isa urida ndem nameef na alxasaawu ah. reer bu ñu waree reer rek mu ne leen demal diw nga reeri kër diw diw demal diw te nga reeri kër diw sii da dooleef na fii ci jàkka ja min baax di xaybar a gannaaw xaybar lamaa xasta ba fotee minu ci moom arjaaw wàlliya bixili ci ñooñam ña bu jigéen jàkka ji dafa xat mbooloo mi mu xam xatatut ca xajatut ca nag ci la mujj nag ñu yokkaat jàkka ja ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla nit ñi xajatuñ fa dégg nga sallallahu alayhi wa Euh, mu ngoog loo teg euh, dégg nga wa banaa tabax na xujratay ni xujratay ni ñaari saal taskunu yooyu dana dëkkee fiyaa ca moom aha ah, ah. ku si dëkk sawdatun sawdatu suma ay sopp Aïcha ak Zahra koy aji leer wasawaa sax na zaaya ashurin juróom benni weer dégg nga euh, juróom-ñaari weer ci bi abi ayuba ci kër abi ayuba wal ardu suusa asraqat jolli na wa sama wa bi sax na kër abi ayuba juróom-ñaari weer yoo xam ne abu ayuba ko dëkkal mujj gi nag bañ tabaxee jàkk ja lañ tabaxaale ñaari saal parce que ñaari soxna la am ñett la waaye kenn ka gaañu na muy Sayyidatuna Xadija ci at moomu xam nga takk Sawdatu Aysa ba ci njëkk ñaari saal yooyu nag kenn ku ne jox la benn moom nag amul néeg ku ay rek mu dem aféetee moom sax dund na ba génn àdduna mos am néeg fu ay rek mu dem fa sallallahu alayhi wa sallam kenn du yonent bi dégg nga de dafa mel ni ku dëppaat xisa bi bañ koy tabax nag yan xulu nga def de mi ngi mi ngi toxal ak saxarat doj wa saxaabu saxaaba ya tuxaat yi ña ngi koy toppandoor wa kaana nekkoon na ri daaw làmbaay ga minu ca moom waqaawu di fegal ko ñu doon làmbaay ga di ko téeñoo waaye mujj gi jibril lañ koo xaaj mu bàyyi làmbaay ga di ko directement daje ca foofa jëf na jëf na ta saxdin ñaari bagaanu saxdiya su ma asa topp asaat ibnu saraara seen ñaari yàq ya dëban baax la par bu seen ñoo yàqal yonent bi lam taxi jengut anu walis ko xàggasaan naka ni soxa daaw ñu texe yi mooy maanaam ba mu demee bees amul dépense bu sax bu ko defee léegi sax dum noo obaada euh, moom moomu moo ko daan yekkal ak maanaam asad ibnu sarara ba bu set rek nday al yu xasara jiyu ñoo koy indil ay yàq yu baax yonent bi ak njabootam nga di ca génn àdduna euh, léegi nag ndeysaanam mujj ki xam nga sax dum na obaada dafa mujj moom la moom la jinne yi rayoon fa demoon di àll bi rek gis benn kii pax mu fay génn kii rek ndeke dëkkab jinne la ñu xëy rek gis euh, mu génn àdduna lu ko rey lu ko rey ñu dégg ay way ci kaw xatal naa sayid al xasraji sax dab nu obada ramay naahu bi sahmay ni falam naxta fu aada mu jigi bam génne àdduna nag mu euh, jigi yàlla yàlla yoomalal yonent bi nag ci ay xare mu ci ne yonent bi mu génne àdduna xam na lool bëri la lool bunt bi mooy baabun fi muaxaatihi sallallahu alayhi wa sallam bayna al muhajirina wal ansar yonent bi mu demee ba toog Madina ba dal coonoy tukki bi yëpp wàññeeku gannaaw ba mu fa defee juróomi weer dafa mbokkale waa lansaar ak muhaajir yonent bi ko rafet doxalin la jël waa lansaar ne leen yéenay njaatige yi yéen muhaajir yi yéenay yi ci waxin kenn ku ci nekk nag biir ansaar yu moo ta benn muhaajir yu nga nekk di njaatigéem féetee ko fu mëntoon a féetee boppam moom tamit mu féetee la foo mënut a féetee sa bopp di la demal tool di la doxal sa yonantu yow tamit wërsëg sa la yàlla jox nga bokk kook moom. kenn ku ne ci ñoom mu xool ne la diw diwoy sa mbokk diw diwoy sa mbokk diw diwoy sa mbokk ba mat fukk ak juróom ci muhaajir yi ne jël ñeen fukk ak juróom ci wàllan boo leen boolee ñoom ñëpp mu jox la limab juróom ñeent fukk yu des nag ñoo dëkk ci jàkk ja kenn ku nekk amuloo foo nekk dégg nga dégg nga de Euh, mbokk ga ba ko yonantu bi doxal di ko nos mi ngi ko doxalee kër abi talxata ci la mbokkalee aboubacar siddiq ak xaarijata bintu saydin foofu la aboubacar toogee sax bintu xaarijata romb ko mu ne ki yàlla xamal na ma ne ne li mu ëmb jigéen la euh, kon moom yàlla yàgg na ko woon ci kasfu dégg nga mu jël omar ibnul xataab maanaam mbokkale ko ak utbaan ibnu malik jël bilaal dégg nga euh, ak ah, maanaam ibnu ru'min ibnu ru'yam moom la ko mbokkale mu jël ku mel ni sayd ibnu xaarisata mbokkale ko ak usayd ibnu hadir ci la jëlee maanaam mm, ku mel ni abi ubayda boole ko saad ibnu muaz ci la jëlee abdurahman ibnu awf mooy ku bari xalal kooku maanaam mbokkale ko ak saad ibnu rabia moom tamit nag ku kii la ah, kii Abdourahman bi ñu ko bokkale Saad ibnu Rabi'a Saad ibnu Rabi'a bokk na ci ñu ëpp alal ci wàllu Ansaar mu xëy rek wax Abdourahman ne ko damaa bëgg euh, euh, jël sama tool yi xaajoo ko ak yow jël sama kër gi séddoo ko ak yow jël sama yére yi séddoo ko ak yow am naa ñaari soxna danaa fase kenn ki bu jàppee yàdda ba pare tamit ma jox la ko léegi nag euh, Abdourahman ne ko wan ma yoonu marché bi rek yooyu yëpp bul mu ci fekk ba ko wanee yoonu marché bi nag Abdourahman di liggéey ba yàlla dogal na bokk na ci ñu ëpp alal ci saxaaba yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon yoonu liggéey ku la ko wan rek teggi na la coono àdduna seetlu nga ko kon moom la mbokkoon léegi nag ba ba mbokkoo gi bëree Ali ibn Abi Talib dafa jooy ne man awma ko ma yonent bi mbokkaleeg yonent bi ne ko yow yaay sama mbokk nag mu door a faraj ronkam ne mu dëkki ko yonent bi amrihi ci ndigalam xam xamsin gannaaw juróom min suhurin ci weer ku mbokkoo asxaabu wa saxaabaam yi alkuramaaw ñi di way tedd tànn ñeent fukk ci moo tax mu ne xadru tisina li ma ñeent ñeent fukk jam'uhu mooy seen mbooloo ma wata saa wow xemoon nañ parce que boo jëlee ci ñeent fukk ak juróom-ñeent juróom fële jël ñeent fukk juróom fële lu mu lay jox juróom-ñeent fukk maam xalifa tofal ca buñaane walil ansaar ak nekk la ñal waa ansaar rifaatun yëkkati ko wa saqaaw ak tabe ndax euh, seen jikko ya seen jikko ju yaatoo tax lañ am ñi man koo séddoog ñële mm. ba mujj yàlla wàcce ci ñoom aaya di leen tàgg ne walladina tabawawu daara wal imaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu u yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa kenn du ñoom léegi nag ñi mujj nag euh, ña ñàkkoon yëgatuñ seen ñàkk ga parce que ñi am dugalaal nañ ci seen biir am gi mm. te toujours yàlla day bañ am am féetee benn côté xeex ak noonoo ak mbañeel ak yëpp foo ko fekk rek am am bu féetee benn côté la yàlla yekku na dawlatan bu xamee rek man man bu féetee benn côté rek fokk ñi mënut danañu am ay yeneen yoo xam ne day day indi ci yooyu léegi nag bi ñëwee ma dina nag neexut lool ndax eh, climat bi ñu bàyyi Màkka moo gën a neex climat bi ñu fekk ma Madina te changement di climat day yóbbu nit feebar ba ñëwee nag saxaba yu bëri feebar ndax climat bi métti lool ñu ci bëri nag commencé di ayibal madina di ko gaafal moom lay maam xalifay wax ci nii ne su mastaw xamoo topp gaaflu nañ mooy mbasu nañ al madinata madina dëxëran ab diir lam yuwaafiquhum dëppoogut ak ñoom xawaaw bànneex ba fii xawaa dégg nga xawaaw dégg nga climat ba fii xawaa seen bànneex ba climat wu dëkk ba dëppoogut ak seen bànneex ba euh, Makka dafa nekk dëkk boo xam ne buy tàng day tàng ndax ay dajo ko wër buy sedd tamit nag day sedd Euh, Madina nag taxut doj ya bari noona euh, Màkka ko ëpp ay doj moo tax tamit dañu wutee dañuy dañu wutee ay climat moo tax dañ fa demee waxita siburu na dégg nga euh, a siddiqu dëggalaa kon ba alxatiqu ka de kuñ goreel ci safara la day xaa fa Madina wa bihaa ci Madina sax de massa la laalee alwabaaw toskare maanaam mawla yéy ñaari mbaa yàllam ya mooy Bilaal ak Amir ibnu Fuhayra feebar nañu feebar boo xam ne bu métti la kenn ku ci nekk yaakaaroon ne bakkanam dana ca génn ndeysaanam sayyidatuna ah, kii tamit feebar fa feebu métti sayyidatuna Aïcha euh, moom tamit si buru métti moo ko fa daane ci la ci la ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah na de waaye e, bi ne ko kaay ma jàngal la ay baat yoo xam ne soo ko waxee yàlla dina si buru ba léegi dañ koy moccee ci la ko yonantu bi nag jox baat yi ne ko boo ko waxee yàlla dina dimbale mooy ne allahuma irham jildi raqiq wa azami daqiq min shiddati ariq ya umu maldam ya umma maldam in kunti amanti billahi alazim fala fala tusaddaci rasa wala tantani lfama wala taakuli llahma wala tashrabi damma wa tahawili ila man ittaxada maa allahi ilahan axara man wax ju rëy la ne yow yow yàlla yàlla nga yërëm sama der bu sew bii sama yax yu ñàkk solo yi ci tarak maanaam lakk feebar bi sa sibur dañ koy dañ koy dàkkantale umu maldam yow umu maldam su fekkee gëm nga yàlla bul méttati sama bopp bi buy xasawal sama gémmañ bi ndax xam nga nit bu feebaree rek gémmañam day soppeeku bul lekkati sama yàpp wi bul naanati sama deret ji na nga dem wëlbatiku nga toxalu jëm ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne yeneen yàlla am nañ ku dul yàlla kon yoo xam ne ñoo war a roof ci duru ba waxee li ca saasa rek ci la ko yàlla saafara ba léegi nag nii bu nit feebaree di ko jàng wala ñu bindal ko ko yàlla mën na ko saafara bu tax na nga dem di ko waañaanee ah, mu nga bé nga kulluhum ñoom ñëpp yadkuru ñu ngay ayibal nga koy firi albilaada réew ma bi shahrin ci way kenn ku ne yaa ngi ayibal madina ci ay way wayu xam nii di way bii ci moom bu neex ma baax na xanaa way ya kenn ku ci nekk di way ku ku mel ni Aboubacar Siddiq ba ko feebar bi dalee moog ñaari mbaay yàlla mi Amir ibnu Fuhayr ak Bilal Aboubacar bu feebar bi ñëwee rek mooy wayam yi kullu mri'in musbihun fi ahlihi hmm. wal mawtu adna min shiraki naalihi mu ne ñun daal ku xëy ci ñun rek ci sa njaboot sa dee moo la gën a jege sa waraw dàll shirak hmm. nga dàll kon ni ko ni ko ni ko ni ko kii jege kon loolu na bilaal tamit ndeysaan bu sibru bi daanee ci moom rek mu yëkkati baatam ba allah layta shi'ri hal abitanna laylatan bi waadin wa xawli izxarun wa jalilu ay xur lañ fa hal hal arudana yawman miyaahu mijannatin dégg nga waxal waxal yabduuna lii saamatan wa tafilu yaay place lañ foofa mu ne daal xelanti woon ndax man danaa fanaan génn guddi rek ca xuur wa muy màkk xam nga xuur la moo tax ci batxaaw ndeysaan mu nekk sama la isqar ak jalil ndax mën nañ ma delloowaat waaye ca ndox yu neex yooyu ma di ca naan eh, loolu ndax dana amatem déet kon ndeysaanam mbir maa metti woon loo teg ah foofa nag mbir mi métti nag gaa yi ñëw di kalaami rek yonantu bi fa daa la ñaanee Moustapha kuñ tànn ka li rafi balaa ci yëkkati toskareeb dëkk ba sa yëkkati mbasu dëkk ba mm. da moo taxi nag fastu jiiba Euh, ngay wax ne fa ba nangolof na laxaa ñeel ko duwaawu ñaan nga wala nga ne wala laxaa ñeel na dëkk ba tiiban ak teey fa ba nangolof na duwaawu ñaan nga léegi nag bi mu ñaanee rek ñaan nga nangu dëkk ba nag climat ba soppeeku dëppoog seen bànneex ya am na ñu wax ne su ca nekkoon taay ak climat ba lañ toxalee foofu indi ko ma Madina jël climat wu Madina ba ak suusa yóbbu ko taay dañay dox ca place yi sax yëguñu ko kon yàlla rek a yàlla léegi nag dal na euh, yonent bi mu demee nag ba dal nag xam nga yëpp ñëw na waaye njaboot ba ñëwaguñ parce que waxagul la njabootam gi la leen war a indi mm-hmm. ci la nag def ay fere wut ñaari gëléem mm-hmm. ak lañ war a ànd ak wut ay ay ay xale yu góor mm-hmm. ñu war a dem Màkka pour indi waa këram parce que waa kër yi ñëwaguñ de moo tax mu ne wa aba rafia aba rafia wa zaydan ak zayda